aca jërë ngeen jëf ba tey rek comme d'habitude comme ni ko sama ndijaay waxee léegi laa jot benn séquence rek ma daal di daw daal di ñëw ñëw nag ak sama fekk fi ki nga xam ne nee naa la ba mu dooree ba tey doomu mbuur la tey lii nii nee naa la ba mu ko yore ba tey maa ngi koy doog gis ñu ngi doog a gisante bët ak bët mais yàgg nañuy toog di bokk jotaay di waxtaan gàcce ngaalaama lañ koy wax na nee naa la ba mu yoragul mbuur sax mu ngi liggéey mbuur tey mu yor mbuur te lii yoragul mbuur la ñu ko doon kon bu ko defee tamit dañuy ñaan yalla dem bay dégg ko sax ci président de la république ah de mëna nek nekk te lépp mëna am waaw ndax jambar la bëgg na mbuur fonk na li nga xam moy dëkkam juddo fi yaro fi xam lan moy jangoro wa mbuur mu ciy dox sa su xey monsieur le maire ñu lay ziar ma lay ziar bu baax eh, ziar eh, ahlul amr yëpp waaw di contane si gisse biñu wax nga dëgg la lion yoon eh, nañ mais nag ñu ngi lay suivre ñu ngi gis sa taxawaay ñu ngay accompagner euh, axlu làmb ñu ngay accompagner discipline boobu nga xam ne mooy sport euh, traditionnel ak national bi nga xam ne ñun ñëpp dañ koy bàyyi xel incha allah donc ñu lay félicité également di lay wax ne daal Euh, continuer si noonu rek ñu lay suivre bu loolu am na solo tey maire tey ñu gis euh, li nga xam ne moo nekkoon jàngoro Mbour nga ñu ko doon dikk avant nga doon li nga xam mooy maire ba tey nga toog fii yor euh, pour dëkk bi tey nga ñëw fa yéene daanaka li nga xam mooy stade bi liggéey bi boo ñu doon ñëwalaat si liggéey ak budget bi ak tamit mën nañoo toog ñaata temps lañ mën a toog pour affaire bi pare lan nga ñuy wax. waaw stade bi moom comme ni nga ko xamee rek dafa nekkoon si situation boo xam ne. nguur gep dañ ko doon baye xel ndax euh, xawon na yakko dal bu baax te fi mu nek bo gisee talibi bi dañ koy romb ñëpp diko mettelu mo do ñun biñu ñu rek ñu jël ko def ko priorité sur priorité bi ñëwee ñu indi fay ingénieur ñu def études yi def plan bi def budget bi def lepp biñ xolé budget bi xam nañ ne mënuñu ko defandoo ñu jël ko def ko ñetti pàcc pàcc bu njëkk bi mooy defaraat euh, tali bi defaraat grille de protection bi defaraat toilette ak guichet yi page bu pàcc boobu moom la ñuy démarrer tey incha allah di déparé fii février euh, bu ko defee ñu mën a démarrer deuxième pàcc bi mooy defa tribune bi euh, tribune bu de grande capacité boo xam ne day jël allée bi yëpp bu defee bu ñu amee événement nit ñi mën a toog ci condition yu baax troisième phase bi nag mooy def fi pelouse bu mucc ay ba nga xam ne ëllëg bu Sénégal doon accueillir coupe de coupe Mbour dina am ñaari stade yu mën a abrité ay match dina mën a positionné daal pour bokk si dëkk yi nga xam ne nii dañ ko abrité parce que am bu amee ñaari stade yu baax am euh, ay ay ay ay hôtel ñaari station balnéaire euh, euh, seq ñu Mbour am position bi am si championnat bi ak si wàllu sport daal en général donc dina yomb pour ñun ñu mën a accueillir Coupe d'Afrique donc yooyu yëpp daal moo tax ak demande bi daal demande bi ñëpp dañoo bëggoon vraiment. Euh, stade bi ñu mën ko euh, defaraat bu baax moo tax ñu song ko tey jii nag allah première phase bi février mu pare deuxième phase bi ñu démarré ko muy tribune bi bu ñu paree nag euh, comme pelouse boobu moo gën a cher dem na ba ay quatre cent quelques millions cinq cent millions boobu nag dañ koy waajal préparé ko saisir ñi nga xam ne war nañu see mën a jàpp ministère de sports wala beneen pay bailleur bu mën a nekk. pour que mu mën ñu si jàppale incha allah. dëgg loolu am na solo euh, euh, euh, tey jii ñu gis ni tey si semaine bi suba lax wax lamb waroon na fee am dégg nañ wax yu nekk mais comme li may wax rek nee leen man lu may dugg lu nekk rek damay bëgg mu leer balaa ma see xuus en 100 pour cent da bërki démb bi may def émission cadre amateur woo président Maysa mu leeral ma ni yow waaw yónnee woon nga dem nga tamit ba si promoteur yi wax leen carrément leen lamb mënu fee am avant. ñoom ñu xuus organi euh, continuer seen i euh, li nga xam mooy publicité ba def lu dul trois jours ñuy doog a wax ni maire moo ñu wax ne stade mënu see jot te waxan nga leen avant loolu boo koy wax ñu ne affaire de politique leen di toon bon xam nga fii rek dëkk bi damay wax tuddee ne lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amul woon euh, Alaaji Malick amu ko Cheikh Ahmadou Bamba amu ko Cheikh Nassir Saad amu ko man Cheikh Issa mënuma am prétention am ko fii loo fi def rek ni ñi dañ ko am na ñoo xam ne wax mooy seen métier am na ñoo xam nag liggéey moom mooy seen man tamit lépp lu may def dama koy jéem a teg ci si yoon euh, déjà promoteur bi masul bind mairie sax bu informé que rek noonu ne da koy day day day def làmb amul autorisation informe mairie sa jaaroo fa man maa ko yëg parce que fii képp ku fiy bëri xam nga ne euh, écurie yëpp maa leen di ngem écurie yëpp maa leen di solal presque ticket yi sax 40 pour cent yëpp maa koy jënd te loolu yëpp dama koy def par jàppale làmb parce que man si làmb laa bokk écurie Mbour Géej bu buuba assurance sama turoo ngi si récépissé bi te Meesa Ndiaye boobu xam na ne drapeau euh, chef de l' état bu euh, région de Thiès bi maa leen daan jàppale maa leen daan jëndal ay ay ay ay ay tenues même serbet yi ñu daan fompo sax maa leen ko daan jëndal donc yàgg na ak axlu làmb ànd naa ak ñoom ba tàyyi pour làmb jëm si kanam promoteur yi tamit fii defe naa ne euh, tàkkusaan bu nekk tudd nañ ko fi ma ñëw accompagner leen kon man du man maay yàq ma parce que dama see bokk li des nag mooy nit dafay responsable man de jàpp naa ne bakkanu doomu aadama moo gën ay milliards jàpp naa ne nit waroo xool sa poos ay dërëm dërëm yooyu am si benn activité bay jël risque rey ay doomu aadama man moom sama activité eh, protéger doomu aadama yi seen bien ak seen i personne moo ma gënal di def activité yoo xam ne di ko risqué te yoo xam ne bu dee di am yow doo dee fay nit ñi di dee doo fa nekk sa doom du fa nekk man loolu du kooku Issa ku ko jël boobu option nag demal nga jël sa option boobu nga rey doomu aadama yi après nga am seen responsabilité man reyuma kenn te du ma def loo xam ne également day dañ ci euh, seen bakkan mën na si am problème li ñu leen nag Massé Ndiaye boobu il est très na leen li xam ne moom moo ci am waxtaan nañ ak moom ma informé ko si lépp te promoteur bi jours avant mbir mi wax naa ko ne làmb jooju mënu ko am parce que làmb joo xam ne fañ koy defee miir yaa ngay waaj daanu man Cheikh Issa Sall du ma jël responsabilité ñun Mbour dañ am lu ñu daloon at yi passé démb jóp ba tey ñu koy jooy noppeeguñu fan yi passé Ibamar am noonu fi xew la Diola ñu ngi 27 euh, février bi fe septembre bi lañ doon feete yaa ngi dégg vingt ans yi kon bu ñu jëlu tiiru ay leçons si loolu yëpp waaye di xool suñu poos poos ba tax ñu bëgg a rey ay nit man loolu say saa du si ànd du si bokk te du ko gunge loolu donc moo tax ñu jël décision ne fii dañ koy defaraat ba mu baax ñu tegaat ko si loxo waa ahlu lamb tegaat ko si loxo nawetaan yeeg football bi tegaat ko si loxo jeunesse mbuurwaas en général bu ko defee ñu mën fi exercer aussi lu mu gën a rafet. dëgg loolu am na solo sport amul kumba am nday amul kumba am baay li ñuy wax nag ñun waa lamb nañ si ëppale te am na lu ñu waxante woon avant bis bu ñu inauguré stade bi man maa fi njëkk tëgg lamb te si sa poos lay jugee nañ waxante day leer. yaa ko yàggal yaa ko yàggal yaa ko yàggal yaa ko yàgg dama lay vaar de. yaa ko yàgg bis bu ñu koy indi gën a sa poche lay jógee te maa doon promoteur. yaa ko yàgg jaajëf <laughs> kon yéen a ko déggandoo yéen a ngi gis noonu ndeysaan stade bi ñu koy defar monsieur le maire li ko ñor mooy doomu Petite Côte bi sport amul kumba am ndey amul kumba am baay te nee naa leen li ko war la nga xam ne ba mu doonagul maire si nekk si la nekk chaque jour di ci wax ba tey jii tànk yooyu ci la nekk ngeen gis ni tey jii nii gis ngeen stade baa ngi noonu bu ba bëri na fi bu yàggul drapeau monsieur le maire la woon. mani la fe dem production teug nañ fi lamb drapeau monsieur le maire la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon dama naan gaay gatte ngala ma Cheikh Issa Sall di ñaanal yalla yeen bi oyof ba lepp li nga xamni mom la bëgg ci petite côte bi ak doomu petite côte bi yalla matalé ko yalla defal ko jamm ak ah, wër ak ah, guddu fan ndax nee la man ba mu gul maire la leen wax de man ak mom si Mbour TV nena la chaque jour fuma ko fekk mu teral ma tamit naan ma bis bo paré bëgg teug la ma ñëwal man ma lay jassal yépp nee buuba nag 5 millions lay xam nga damay tëgg Bouba grand combat ndax man damaa bëgg li traditionnel <laughs> Bouba nee na moom laa tëgg kon gaay fii lay xewee léegi rek yàggatul ak Cheikh Issa léppay baax si biir Arène TV rang moy abonné